bëgg naa tey nag comme son yi bu moom ma ngay noppalu ñu waxtaanee euh, li nga xam ne Abdou Mbow wax na ko euh, ci premier ministre bi di euh, Ousmane Sonko jëm ci wàllum déclaration de politique générale bi nga xam ne boobu ba tey ñi ngi koy ñu ngi ñu ngi koy buux pour mu ñëw assemblée mais ñeneen ñi nee nañ balaa mu ñëw il faut d'abord ñoom réglement intérieur u assemblée nationale bi ñu ne dañu ko jalgati woon. ci ay jamono ba léegi nii rek rectifié guñ ko te euh, bu ñuy wax ne dañu ne assemblée bi jamono jii ñuy wax ak yéen euh, euh, reconnaîtreul kii di premier ministre bi looloo waral moom munta dem kadeer itam ginnaaw pissement yi amoon fële ca Colobane doxantu woon na fa ngir rek jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom ñoo am jafe-jafe ci mbir yi mais dafa mel ni dañ ko fa mujje yuuxu humilier ko ba mu jóge fa mu nekk ay mbir yoo xam ne moo xew ci penc mi ci daanaka ci weekend bi ñu génn. macha allah hmm, euh, dégg nañ euh, actualité yi. Mm-hmm. li nga xamante ne bi euh, gis nañ ko mm-hmm. nit ñi di ko wax mm-hmm. Abdou mbaw dégg nañ ko mu wax dégg nañ ñeneen nit wax mais xam nga li am solo ma jigéen gis nga Sénégal mm. dañoo neex a orienté euh, te sénégalais yi ci seen jëmmi bopp li ñu war a bañ mooy ñu di leen orienté ci l'essentiel parce que gis nga mbir yi dafa am noo xamante ni bi noonu la tëddee Ousmane Sonko di première ministre la nga xamante ni bi moom la war a def muy déclaration politique générale daf ne leen nuppi na pare na waaye nag lii mën a tax ma dugg ca assemblée nationale ngir amal ko man su ma ñëwee damay jalgati yoon parce que ci seen réglement bi reconnaître leen ci lile damay jalgati yoon mhm. te nag man comme que dama nekk nit koo xamante ni damay dox ci wàllu yoon te bugguma nekk ci lu légalut illégalité bugguma ci ne donc nag dama leen di ñaan yéen waa assemblée gii dama leen di wax ne leen lii nga xam ne mën ngeen koo jubbanti ci ñaari fan sax mën ngeen koo lijjanti ngeen fexe delloo si la nga xamante ni bii mooy mbir moom ngir ma mën a ñëw def ko léegi nag yéen loolu bu ngeen ko defut man de comme que damaa amee pour askan wi xam li ma bëgg a wax danaa organiser loo xam ne mën nañ ko tuddee déclaration politique général mm-hmm. ma wax askan wi gouvernement bi fu mu fas yéenee yóbbu réew mi mm-hmm. du dëkk waaw waa lii jar na xulo déedéet su dee ci réew mu sérieux rek lañ ne mm-hmm. Abdou Mbow député la loolu moom kañ mën naa dem dugal ko pour ñu waaw li Ousmane Sonko wax pour ñu def ko léegi lu waral coow li ñu bëgg a coow maanaam dañu bëgg a indi xuloo pour dëgg gi réer. nee nañ lii la. non non crise xanaa du ma xam crise <laughs> na nga ne xam ne am na boobu fii la fi taxaw nag ko virus corona bi day naaw. xam nga sax <laughs> waaw man ak moom def émission mu wax ko après gomis jàppale ko ci ne day naaw gomis. gomis moom bi mu ba ànd ak bokk ak idée rek la war a xam ni ci eh, mu ne virus corona bi day naaw. xam mhm. loolu mooy. Mhm. mbir mi. léegi dañu bëgg a coow mel ni affaire bi xuloo dafa am nii ak nii ak yenn ñi nga xamante ne ay yenn journalistes yu malhonnête di bon di appuyer loolu c'est parce que ñoom it dañu bëgg a benn forme opposition boo xam ne jéem a defee ne mën nañu presser jéem a napp l'État et cetera pour jéem a cëru comme d'habitude ni ko niñ koy faral di defee te loolu mënul ne li am solo daal mooy bal bi mu ngi ci camp wu député yi ngir ñu def li ñu war a def Ousmane ñëw def li mu war a def mais amul xaste amul dara. am. war nañ koo bàyyi dañuy dañuy nelaw quoi balaa may dee ñuy rappeler naan lii la amoon na fi waxoon na fi lii waxoon loolu yëpp waxuñu ko ci wax ji lañ wax. Mhm. yaa ngi dégg li mu fi waxoon ñëpp dégg nañ ko. Mhm. yaa ngi dégg bu dee ñoom ñi ngi soog a jot nag ñi ngi koy soog a déglu ñi ngi soog am jotu déglu ko ñun tar yéen ñoo nekk di arrière. Mhm. naan lii ak laag la le comprendre mbirum xuloo amu ci defar leen de li nga xam ne mooy seen règlement intérieur ma ñëw def li ma war a def loolu. simple waaw loolu jarul coow xeex mi ngi noonu lu waral xuloo be xeex bi lu waral taralal jeeg mbalalal ku ne di wax ah vraiment APR sonal nañu te lii PDS jiwu leen ko woon PDS taxawutoon ni mm-hmm. PDS Abdoulaye dana leen eh li ma leen di xamal mooy lenn Macky Sall lañ fal accompagner leen ko lu mu bëgg defal leen ko bu ko kenn gêné mais ñoom ñu bëgg a nekk di gêné ko mm. non ñii billaay niñ bañee réew mi kenn mun laa wax sax fu mu mm. parti bii moom wax dëgg fa yàlla léegi nag mi ngi ci dund nag dernier yi kiiwam ah. day naax saay moom ban ban opposé wu parti bu amul nga naan dañuy opposé kuy jiite ah, ah. kan mooy jiite Amadou Ba jiite du jiite ji lii lii baaxut xam na ni lii baaxut du ko jiite ji dañ koo bëgg moom rek lañ bañ yow lañ gën a bëgg ci Amadou Ba de parti bii bëgguñu ko bëgguñu Amadou Ba ñoom buggante wuñ parce que ki tëgg parti bi tëgg àndutoon nag ñoom ngir ñu bëggante daf doon liggéey pour ñu bëgg ko moom maanaam ci seen biir nag yéen concours leen kan moom ma ci gën a bëgg waaye bu leen fi bu fi kenn bëgg keneen moo tax kenn bëggu fa kenn ah, ku ci ne sa bopp nga nekk armée mexicain lañ fi mu toll nii li leen tax sax ñu exister nii tuuti mooy majorité assemblée bi loolu bés bu dakkee billaay parti ba tas hmm. dootut amat dootut nekkati hmm, hmm. xam nga ba tey eh, kii a ngi nii eh, PS a ngi nii di yëngal tànk mu ngi ah, yaa ngi dégg PS ah <laughs> ngi nii nopp baa ngi yëngatu tuuti naan ma nga yëngal nopp du ba tey faatawul ah. mais ñii moom daraa dootul yëngu ah. waaw lu leer laa la wax bàyyil ba avec parti bu gaaw dee la ni mu ne parax parax mii ñu ne kii dem na jël na kii mm. mais ñoom ci njuumte ñenn yi dañoo gëm ni dañuy ñëwaat de. gëmuñu ko de. ba ah. jigéen ñi dañuy dajaloo nii seen dajaloo bii hmm. mooy seen dernier dajaloo dajaloo bii hmm. mooy l'ultime daj fi mu toll nii hmm. ci seen fin de règne lañ moo tax coow li bari jeex na dafa jeex ci dajaloo googu moom day naax saay ah, dajaloo googu sax sa marché kolo si Colobane pardon euh, fa demoon ngir jéem a jël quelques réactions mais dafa mel ni daal gars yi mayuñu ko woon daa foofu nga xam nga waajooju moom Kader moom dama ko yërëm maanaam Kader euh, li gars yi tuddee seen émission bi euh, moom nag daa jëf-jëf ji parce que li mu jëf ne euh, xam nga gaa yi dañu tuddee émission bi ne xaw ma kër doo yi waaw Kader nag moom jëf ji mu jëf mu jëf yi kii la jëf yi lool la parce que da ngay xool Kader rek làqatu kadeer làqatu bi ni mu làqatoo kadeer dafa jaawale mu jël mask takk mask te kadeer bopp bi la waroon a couvrir. da bi amoon. non non ban poussière su da doon làqatu. si bakkan yi moo tax. gars yi kadeer làqatuwul na. kadeer wóor na yàlla masque bi pour làqatu la. mais kadeer bopp xamul ni moom gars yi bopp bi lañ ko xàmmee. bàyyi bopp bi bopp ndelam boobu <laughs> benn waaye nee na ko kadeer hmm. yow mii bul wax bul mere kenn hmm. eh, sabab bi la la gaa yi xàmmee yaa ngi dégg hmm. nee na ko boo demee bul mere sa jabar bul mere kenn mais li mu def waxuñu ne wax waxuñu ne waxuñu ni dafa aay xam nga waxuñu ni dafa aay dem filmer waxuñu ni aay na mën ngaa dem filmer waaw mais léegi lan moo nekk bitu filmer bi man Kader émission yi ma koy gis chroniqueur la lay présenter wu gisuma ko muy dem di indi ay éléments et puis tamit bu fekkee ne dafa dem pour télé ba mm. télé ba xanaa caméra lañ ko doon jox mu ànd ak moom yor micro am comprendre mm-hmm. dem pour def ji loolu léegi li mu doon def laa xamul lu mu ci jublu waylaat peut-être dafa yor ab chaîne YouTube am. xamante ni bii mi ngi tudd xam naa diaboliser TV mu demoon pour jéem a diaboliser pour jéem a def loo xamante ni bii. <laughs> yow kat information nga ni <laughs> ah, xam nga yooyu lañ bëgg xam nga gis nañ fi waa APR. Mhm. Eh, xaw ma doon astafurlaa sax parce que du ma waa APR gis nañ fi daal ñoo xamante ni bii jël nañ ay montage. Mhm. dem jëli ay son ñëw teg ko ci vidéo bi nga xam ne bi Ousmane Sonko ñëwee mhm. nga gis presse bi nga xamante ne bii tamit ñu ci bari wax dëgg fa yàlla euh, seen ab liggéey des na euh, nga xam ni ñoom ca bis ba la leen booy wax ne leen euh, bu leen ñu fenal mhm. bu leen ñu sosal bu leen yokk suñuy wax mhm. ñooñu ci seen jëmmi bopp xëy ne Ousmane Sonko dañ ko doon yuuxoo presse ba bind ko. Mhm, waaw pareen saa yi nit ñi dañuy jël wax ji jëmale ko ci ay kuy revue de presse mais kuy revue de presse moom li muy revue de mooy. la muy gis ci journaux yi. Mhm. defe naa ne ñooñu bu fekkente ni bii kii nañ it kañ war a wax mooy ndey ja mooy journal mooy journaux ba bind. ba bind waaw ba bind. Mhm. daal di wax ni. lii am am lii yofaram te yàlla xam ne ni boo defu ndànk sax génnuñu seen kër mm. ñu fañ ña ñoom jéemu ñoo toppatoo dañuy jaboliser rek ñenn ñi dañuy yem ci benn vidéo rek ne ah kon nekk di lii fi demee rek commencé bind mm-hmm. ñu manipuler leen mm-hmm. donc bu ñu demee ba booy yu ndaw di manipuler certaines presse mhm. boo xamante ni bi moo lay wan ne la ñenn ñi xamatuñ fi ñu teg seen tànk presse bi nag xam naa dañoo manqué moyen mhm. pour bu ñu demee kudd paasu kolobaan <laughs> ah loolu moom ñàkk mu seer <laughs> non non non non non du <laughs> ñu tëj te waxuñu ci li xew ca France muy seen élection législative yi ñuy ngi ne euh, premier ci jot a nemmeeku euh, ñii di RN ñoo nekk ci kaw te euh, ñu bëri daal tiit nañu ne ñoom bis bu ñu euh, duggee ci assemblée bi ak seen majorité rek dina indi ay jiixi jaaxa yoo xamante ne ni surtout rawatina ci li ñuy wootee te arrangé wul ñenn ñi. waaw man de wax dëgg fa yàlla jàpp naa ni tiit man de tiituma ci. Hmm. Ah, ah, dañ ne France. au français appartient au français. mais loolu ah. kañ dëgg la loolu lu ci man du ma léegi man lu ma ci waaw mais lu ma ci non c'est gis nga ma wax la leen ci àddina. Mm-hmm. étranger yooyu fa nekk nest dañ fa am njariñ. du dëgg di fa daan seen dool maanaam dañ faa am njariñ dañoo amal njariñ dëkk ba mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. xam nga France benn affaire mooy mbiram maanaam moom dafa jàpp ni buy wax sax ci biir kii yi sax daanaka africains yi rek lay segg maanaam boo gisee seen racisme yëpp africain yi lañuy kii te France lu mu am ak position bu mu nekk Afrique ko tax mu doon ko du dàq nañ français yi Mali waaw dàq leen Niger mhm. dàq leen dax daxee leen ca Burkina mhm. fii nee nañ leen wàññi leen mhm. comprendre nga maanaam boo gisee ñeneen ñoo xam ne bi tamit dañ ne France appartient aux Français mënoo leen ne déet mais nag nañ xam ni am na loo xam ni fekk yaa ngi koy am mënoo gis njariñam waaye bés boo ko ñàkkee ca ngay gis ni am na njariñ xam nga am na ay jamono ay quatre-vingt-neuf xam nga ay quatre-vingt-huit ak yooyu bitig yi ngay gis yëpp ay bitigu naar lañ ñoo installé woon mhm. ñoo géré woon yëf yi sax mag nga xam naa ne yooyu yëpp xam nga ko léegi bi yàlla dogalee suñu digganteek Mauritanie am ay xat-xat ay jafe-jafe am ji comprendre mm-hmm. lu ne xew ba naar yi nekkatuñ fi mm-hmm. mais dafa indi benn waaw boo xamante ni bii maanaam après gis nga sax sénégalais yi jéem a def ay boutique ak affaire yooyu mais ñu ci bari dañoo daanu mm, parce que dañoo dem parce que du woon seen liggéey mënuñu mm-hmm. ko boo ci investir ne naar yi dem nañ nañ ko jox sénégalais yi duñ dem tey jii gis nga sunu mbokk pël Fuuta yi. Mm-hmm. ñoo yore boutique yi ñoo yore lu bari ci dëkk bi. Mm-hmm. gis nga tey. Mm-hmm. am na loo xamante ni bu ko demee. di nga bëgg yenn liggéey yi sax doo gis ku la ko defal. c'est dama bëgg a xamal ne gis nga ni àddina bi di demee nii. nii rek la war a mën a demee. nii muy demee nii. dañoo soxlante. mais boo jàppee ni yow. di wax nañ ko xool ci seen équipe nationale bi. waaw waaw loolu yëpp mi ngi ci xam nga dañoo soxlante. Mhm. addina bi mhm. dañu nit ñi dañoo soxlante. d'accord dafa am yoo xamante ni. Mhm. waruñoo tëb tëb. Euh, daal ne na lii dañ. yaa ngi dégg. bon xam nga discours yu mel noonu tamit gis nga am na ay certains sénégalais yoo xamante ni bii tey lii France wax ñu ngi wax wax yu mel noonu. te man loolu man dama jàpp ni en tant que africain. warut ci ay réew Afrique ñuy jéem a xalaatee nenn ni mhm. d'accord nag réew mu ne war nañ ko teg ci yoon teg ko ci ay charte ba képp kuy dugg ñu xam ni diw dugg na kuy génn ñu xam ni diw du génn na mhm. waaye nag nañu xam ni ñun ñëpp tamit daal mhm. ay africain lañ te ñoo bokk yëf waaw nañu fexe ànd nañu fexe kii parce que boo seetee tubaab yi ñoom ci seen biir fexe nañ dëgëral seeni ànd ba yu am na yu bari yoo xam ne doo ko dégg ci seeni mbir ñoom euro union européenne ak yooyu mhm. ñu nit dañ fexe ñun africain yi ñu réussir yenn yi quoi mhm. euh, joxante dig daje rek euh, suba ak jàmm incha allah ci kàttanu borom bi képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon déglu wala nga ñuy suivre ci live Facebook bi gërëm Fatou mi nekkoon ci euh, live bi ak Xaali Ba mi doon gérer technique bi si ngoon nag di ngeen ñi yàkkamti son yi bu di